bokkee xarit yi tey nag euh, ñi ngi fi nga xam ne moom moo di kër na Nabou Diagne Salvador ñu fekk fi ko xam ne kenn dootu koo présenté ci écran bi euh, mu doon journaliste bu mag faral di dégg ci ci ci kilifa yi ñuy wax naan un grand euh, bu bu génnee ci métier wala bu nekkul ci organe de presse nga koy xam ci taxawaayam ak ci yenn milieu yu muy nekk tey fi ma la fekk nii loolu loolu loolu loolu wuyoo na ko maa ngi lay jaar bu baax moom grand borom borom borom Sen TV borom Zik FM borom revue de presse yu neex sama rakk ji maa ngi lay nuyu. di la ziyaare également di di nuyu ñi nga xam ne ñoo safoo euh, chaîne bu mag bi euh, vingt 24 ni ngeen ko waxee ah euh, di barkeelu déjà ci ñaari fan yi nga xam ne si la ñu ne muy woote Seydina Limaamu Laay ñu koy fàttaliku Al Mahdi 143e édition bi donc ñun lu ñu ci def rek dañuy barkeelu ndax yaakaar naa ne Sénégal benn bopp la man taalibe Cheikh laa waaye terewul Al Mahdi dafa nekk alalu Sénégal. laata muy nekk alalu àdduna bi donc dafa bokk si ñi nga xam ne àdduna bi yëpp dañ ñu ko ñeewee donc lu ñu def ci guddi gi rek wala si bëccëg bi rek dañu ciy barkeelu ñu euh, ñëw fii nga xam ne mooy kër Nabou Diagne Salvador yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté ci réew mi te su ma fi ñëwee sama xarit euh, moom fi andi muy Mbaye Karim moom nag dañu bokk kër gi ma nekk muy D-Média Sen TV Zik mu doon ku ma ñime parce que yàlla xam na ne su ma wàccee rek ngi sama kër moom mu wax ne kon moo ngi fi tey dafay ñëw ci euh, gàmmu euh, appelu euh, Nabou Salvador démb jokkoon nañu téléphone ma ne ko yow de foo mu wax ñu ñëwoon dem damay dem parce que dama ko ñume parce que dama ko ñume moom te loolu dafa dafa dafa xaw a jafe si jamono dañ nekk jamono ju nga xam ne nii lan moo lay noppal wàcc dem toog sa kër même bu nee ma ñu dem rek ma damay ñume parce que maanu gi ma gis si moom nite gi ma gis si moom te yaakaar naa ne Nabou Diagne Salvador du ànd ak kuwaayet ndax jigéen ju man góor la te xam na li mu bëgg donc li nga bëgg boo fay dem faw nga xam ni ngay àndal te bu àndeex moom mi rek yaakaar naa ne kon euh, xam na ki mu àndal loolu moo tax ma ñime ma ma ñime ñëw fi euh, fekk fa nag ay ay kilifa ay ay ay ndaanaan man nag du ma ndaanaan li ngay wax noonu. man yow ndaanaan nga man damay. doo doomu Tëngéej bu jógee Tëngéej ñëw Dakar rek ndaanaan nga. mbappat ba léegi. man damay mbappat ba léegi ah, di ñaan yàlla rek lépp lu nga xam ne ñaan nañ ko fi ci li ñu fi andi tey ji mu nekk jàmm ci réewum ah, Sénégal ndax loolu rek moo ñu yitteel Euh, grand journaliste comme toi doon duñ daje ci bërëb yu mel nii te duñ wax tuuti actualité mënut a ñàkk euh, gis nañ appel bi sëriñ bi démb bi muy def discours mu wax ci politiciens yi nañu woote jàmm d'ailleurs sax loolu doon euh, thème mu ren bi moom mooy la paix et bi bu demee ba toog ni kilifa diine yi nañu orma dëggal politiciens yi autant pour moi nañu ormal kilifa diine yi yow en tant que journaliste naka nga jàngalee discours boobu waaw dañu nekk réew moo xam ne nii yaakaar naa ne sunu ay politiciens ñoo leen ko gën a xam ñu nekk ci réew moo xam ne nii wax fa dëgg dafa am loo xam ne ñun moom lañu ñu nawee sànq maa ngi koy wax àdduna bi yeneen réew yi dañ ñu ñeewee maam Borom Touba dañ ñu ñeewee maam El Hadj Malick dañ ñu ñeewee maam Limamou Laye ñu maam Baye Niass suñu jàngu bi nga xam ne sax mooy église bi dañu ko ñeewee loolu la moo tax ñu ñeewee ñu ko mooy jàmm ji nga xam ne moom la ñu am ñun suñu biir mag yi nag ñu wax ko ñu bañ koo wax dañoo ñage dëkk bi dañ koo ñàkk ñage ko ba jàmm daal di fi am donc ñoom suñu politiciens ñoo gën a xam ndax bu Touba jotee ñu daw wutali fa ñoom ngay gis ñu def délégation bu Tivaouane wootee ñoom ñoo fay jiitu ñoom politiciens yi bu euh, euh, Thiénaba wootee ñoom politiciens ñoom ñoo fay jiitu bu Ndiassane woowee wootee ñoom ñoo fay jiitu kon xam nañ li nekk suñu këru yi man gëw ma ne politiciens ñu ngi ñuy sàggane xanaa kay peut-être doxali ni moo wute ak jamono ju nekk ak lu muy àndal loolu rek la waaye ñoom ñoo gën a xam ne ñoom politiciens bu ñu bëggee jàmm rek ci réew mi faw ñu jaarale ko suñu suñu kilifa diine yi kon mën ñu leen a ñàkk bañ a wekk mën ñu leen ñàkk bañ a respecté ndax bu ñuy ñaanlu si ñoom la ñuy ñaanloo bu ñuy woote jàmm si ñoom la ñuy wootee jàmm kon nag li li li porte parole lu euh, euh, Laayeen yi wax loolu rek mooy mooy mooy Sénégal jàmm jooju rek donc ñoom politiciens dañ leen si ñaan ñun ñoo leen koy ñaan ñu dox si luy andi jàmm. luy andi jàmm doore ko ci diggante ñoom ak suñu kilifa diine yi ba noppi ñoom ak askan wi ndax askan wi kat kilifa diine yi la am ndax diggante taalibe ak sëriñam la te taalibe moo gën a foor militant nañ ci bàyyi xel taalibe moo gën a foor militant donc nañ ci ci nañu xam ne bu sëriñ si soxlaa ah ñoom politiciens yi dañuy ñàkk nañ ci bàyyi xel bu baax militants yi ay taalibe lañ te te ñoom leaders yi ay taalibe lañu leader yi koo ci gis mu ne am naa sama sëriñ diw mooy sama sëriñ ku si nekk wax na sëriñam donc ñoom leader yi ay taalibe lañu militant yi nag ñoom it ay taalibe lañu kon nag wax fa dëgg neex yàlla bu sëñ bi soxlaa day delluwaat rek kon nañu wii sëriñ bi ci li ñuy woo te sëriñ bi li ñuy du leen lu jàmm te jàmm nag si la lépp xaj xam naa di nga wéet de Ahmed Aïdara dem ah Mansour dem wéet nga de <laughs> waa euh, xam nga man bi ma ñëwee seen TV ba léegi matinal lañ ma yóbbu 2015 ba léegi Amina Gueye laa nekkaloon Amina Gueye dem na Yacine ba léegi ñu ngi fi Yacine après la ñëw mais Amina Gueye moom moo ko jiitu Ndeye Marie Dia moom moo ko jiitu ñoom ñëpp dem nañu ma dese woon naax Fabrice Nguema ay Ahmed Aïdara Ahmed dem ma dese waat Fabrice Nguema mais xam nga équipe noonu la man fi ma nekkoon nii wax fa dëgg neexe am na ñu fi nekkoon mais liñ naan affaire yi da dem rek bàyyi sa ñëw noonu la rek dañuy dem rek man ëllëg amaana dinaa dem keneen ñëw loolu la rek. amul lu wàññeeku si des médias parce que c'est des grands noms des grands journalistes ñoom ñoo ñoom ñoo quitté foofu Mansour ah Ahmed Aïdara euh, sentiroo leen benn vide. <laughs> loo loolu peut-être ñii di seetaan ñoo ciy tontu ndax sentir nañ vide wala déet mais yaakaar naa ni de matinal dafa fi toll nii moo nekk euh, émission bi bi ah, ñëpp. tës xorom ba mu amoon amatoo ko de. l'émission la plus suivie. tës xorom ba mu amoon amatoo de. sa xalaat la rek. Ah. loolu sa nga wax. yaa fa nekk de. ndax tës xorom sax mi nga dafa mbéykat yi nekk. xam nga ma mënul ñàkk xorom fu Cheikh Sarr nekk mënul ñàkk xorom fu Mantoulaye Thioub nekk Mantoulaye Thioub ko ko dugal ci tës du El Hadj Ahmed Aïdara kon mënul ñàkk xorom man damay ñëw renfort rek man journaliste la man damay ñëw renfort rek ci tës mais fu gars yi nekk tës mënta ñàkk xorom. mais facette bi nga indi ci ci revue da nga doon def revue avant wala ci école yi nga ko doon defee wala ci yeneen organes yi nga jaar nga doon defee revue wala qu'est-ce a parce que gis nañ tu fais da nga def revue mais tu le TV am nga beneen voix bu nekkut ak euh, ci ci ci ci télé bi ku lay déglu ci rajo bi ngay def revue wala ci ci ci YouTube bi euh, waxul ni yow la duñ xam ni yow la. waa peut-être formation bi ma am la parce que boo jaalee rajo communautaire dañ lay tàggat ci lépp. yàgg a jokkoo Tëngéej. ñoo ma formé. kon ñoo bokk fa ñu <laughs> Jokko FM ñoo ma formé ñoo ma formé si présentation ñoo ma formé ci reportage man sax dama naan man reportage mooy sama fort société dem sur le terrain def reportage man loolu mooy sama fort léegi may remercier bu baax euh, sama directeur bi ma nekkaloon foofu euh, monsieur Ndiaye ak ñoom madame Conté ndax ñoo découvrir sama voix ci reportage waaye bu dee revue de presse nag wax fa dëgg neex yàlla Sen TV Zik FM laa ko ko defee te Bougane Gueye Dany moom moo ma ci moom peut-être moo découvrir loolu ci man mu ne ma booy def revue de presse del waxee sa baat mais bul waxee sa làmmañ parce que man ax yow ñoo yem làmmeñ la ñuy waxee donc revue de presse del waxe loolu moom moom ma ci tàggat et rëccu ma ko nag ndax moom moo ma moo ne ma del defe nii del defe nii ba tey macha allah peut-être ni ñu apprécier nañ li may def comme revue de presse comme ni nga ko waxee. dégg naa gars yi woo nañ la de dégg yaa yor sama numéro téléphone yaa yor sama numéro téléphone. Bougane nag lay seetaan de waxal bu dee da ngay dem mercato médiatique bi ubbi na Youssou dalaa woo wala bu wala wala wala El Hadj dalaa woo. yow mii xëj na yaa yor sama numéro téléphone ku ma yow yow yow yaay décroché. mais waxal woowuñ la. maa ngi dee média. bu bi yaa ngi dee média. ba fii ñu toll nii maa ngi maa ngi dee média incha allah bu yàlla dogalee it ëllëg ku jàkkaar ku seetaan matinal bi mën ngay jàkkaarloo ku déglu tës ñun mën ngay déglu. naa sa tur TFM de wax naa ko. kooku say wax la <laughs> du samay wax. <laughs>